mbokk internautes yi dal leen ak jàmm élection locale yi jàll na ginnaaw ay jàmm euh, tax na nag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon les principaux protagonistes yi ci doon jongante euh, ci nag différentes coalitions yi fu mu toll ni ñu ngi retrouver wu ndax nag passation de service oblige euh, ñu bëri ci nouveau maire yi daal dinañ leen di nag installé ci seen gox-goxaat yi nga xamante ni fa la ñu daal di nag nekk bokk na ci mairie bu Guédiawaye Ahmed dara balu na ak ki nga xamante ni nag moom mooy Aliou Sall gërëm ko sant ko ci ab vidéo boo xamante ni nag ñu ngi koy partagé ah, ginnaaw moom Ahmed dara démb ba ñu ko doon ah, daal di naka installé ah, préfet bu département bu Guédiawaye def lu ñu mel daal di koy installé en tant que nouveau maire bu ville bu Guédiawaye mu daal di nag def vidéo présence su ki nga xamante ni mooy Aliou Sall itam ñu nemmeeku fa mu daal di nag ñëw grandeur humilité jël lépp daal indi teg nag ñëw janoo ki nga xamante moom mooy le enfant maire euh, wala bokk maire bu euh, bees bu ville bu Guédiawaye département bi muy Ahmed Aïdara euh, journaliste nekk nag ci groupe des médias nekkit animateur bu émission Teuss moom Ahmed Aïdara nag daal dinay enfilé li nga xamante ni moom mooy nag ruban bi euh, kay permettre mu nekk le premier magistrat de la ville de Guédiawaye waaye nag euh, euh, moom ci nag air bu taquin daal dinay nag balu àq ki nga xam ne mooy Aliou Sall rak ci président de la République Macky Sall nga xamante ni moo ko duppee woon Aliou Gaz dupe ko sunuy quatre cent mille bokk ci ñi nga xam ne ñoo propulsé coowal pétrole be gaz beeg Franck Timis ak wàllum Petro-Tim lépp moom Ahmed Aïdara moo daal di ci kaw à travers revue de presse yi nga xam xamante ni doon na ko def te saay su nekk ñu ko doon daal di nag gis mu dem sax ba ci refrain li nga xamante ni moom mooy refrain wu euh, euh, nag boobule euh, nag boobule revue de presse di nekk fin ba la mu daan tëjee daaneel ba toujours moo nekkoon sunu pétrole bi itam suul gaz du ko teree feeñ waaye nag Aliou gaz itam moom moo tax sax ni ci di ko raadi woowee noonu ginnaaw adversité bi nga xamante nemmeeku nañ ci seen diggante ci ak nag li nga xam ne mooy sànnante xeet geeg euh, euh, tëkkonte gi ñu nekkee woon teewul nag fu mu doon ni jël nañ lépp teg ko ci suuf moom Ahmed Aidara daal di nag ñëw euh, ca cérémonie ga démb jóg jël micro jàkkaarloo Aliou Sall balu ko àq ne ko grandeur nga àndal te dama koy saluer ndax nag da nga jël lépp teg ko ci suuf ànd ak grandeur ànd ak itam li nga xam ne mooy humilité ànd ak itam oyofte ci nag résultat bi mu génnee ba ci jour élection yi nga daal di nangu nag félicité ma ci nag nam li nga xamante ne am naa ko fii ci diwaanu Géejawaay waaye nag ah, di itam ah, daal di ah, nag moom Ahmed Aidara daal di wane Aliou Sall ne ko nag lii lépp wàllum politique la ta te waaye moo ñu daal di nag ñor waaye bu ay jeexee jàmm day daal di nag dikk dal daal di nag dikk moom laa da nag bëgg wane fii ngir wane du ñu ay noon waaye dafa di rek parfois ci wàllum politique sa morom defee noo xamante ni du ngeen ci ànd da ngeen daal di nag jàmmarloo ba daal di nag ku ci nekk am na nga bëgg su ko defee ñu daal di àndandoo liggéey Guédiawaye géejawaay ndax ñun mënuñu def dara san yow ah, géejawaay itam mënuñu daal di koy yóbbu fenn ndax ah, lu mu tuuti tuuti am na foo ko andi ñun itam bëgg nañ koo jëlee fa nga ko andi yóbbu ko gën a kawe ah, moo tax nag ma koy ma lay àq bu baax a baax di la ci lépp li nga xam ne mës naa la ko naan pep pep dama koy dagg foofu